bi jàngoro ji di coronavirus lëmbee loolu waral kenn ku ci nekk di wut ay ndimbal di ko jox ñi nga xam ne dañ koo ittewoo moo xam ñi nekk ci daara yi ak ñi nekk ay néew ci doole loolu waral ñii di jàppale Aly Ngouille Ndiaye te nekk ci dëkk bu seel bi di Touba de la diaspora ay ndaw nekk ci ni ki démb ay ndogu lañ doon yóbbu ci ñi nga xam ne ay boro mi daara lañu lu toll ci fukki daara ak juróom fa la ñu demoon yóbbu fa seen ndimbal yi Loota gay mooy coordonnatrice bi moo doon wax ci seen kaddu tey suñu yitte mooy ñu doon def Ah, benn journée sociale di doon togg ay xeeti ñam dañ ko yóbbu ah, ah, ci biir daar yi loolu nag mouvement M-DAN it muy mouvement de la diaspora de Aly Ngouille Ndiaye ñoom moom yàgg dañ ko def mais dañ ko doon collecté tey fii ci biir Touba ñu ciy sant suñu monsieur le ministre monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mais ñu ngi ciy sant tamit ah suñu mu nekk monsieur Mayeta Ndiaye di sant ay ñoom Pam Niang ak moom mouvement bi ñëpp ñu leen sant di leen am benn yi nag dañ koo bëgg a yóbbu ci ay quartier yoo xam ne ñu ma bokk ah, jegewuñu ci biir Touba mu nekk ay quartier sancaan parce que bëgg nañoo dem Kellal Diop bëgg nañoo dem Aliya bëgg nañoo dem Ndaamaatu bëgg nañoo dem Baxdaan bëgg nañoo dem Jaanat bëgg nañoo dem Busoobe waaw ak yeneen quartier daal fukki daara ak juróom daal instant yi waaw ñun moom ciblé nañ leen moom pour doxaleen ko kuréel gi nag moom bi mu juddoo yàgg na mais biñ commencé Touba ak léegi moom yàggul Euh, ci ay 3 mois nag moom boobu lay doog a kii yow waaw commencé liggéey ñu muy mouvement M2M mouvement waaw de la diaspora d'ailleurs Aly Ngouille Ndiaye mhm. social tax na koo jël en même temps tamit dañuy def ci acte de dañuy yëngaluwaale ci biir moom ci acte développement ak si politique tamit mais ci moment bi ñu loolu moom nekkul ci jamonoy politique dañoo nekk ci jamonoy social waaw nekk ci jàppalante. waaw waaw waaw lu mel noonu moo tax sax nag moom ñu gën koo def moom ndax waaw ndax instant comme ça kii ah situation yi moom comme ça moom critique na trop moom waaw loolu tax daal tey moom ñu def moom initiative bi mbokk mhm. jigéen ñi dama leen di ñaax rek pour ñu gën a góorgóorlu gën a muñ te xam ne situation bi critique na mais nag ñoom niñ gën a góorgóorlu rek ah gën a wàññi bëgg-bëgg yi tamit moom bëgg yi jàll instant yi moom waa jàll dañ gën a jàppale moom xale yi ak mag ñi ci kër gi waaw te ñu takk masque waaw raxasoo ndox ak saabu ci respecté moom mesure yi daal copain maa ngi ñaaxaale tamit moom ah, sama moroomi jeunes yi nga xam ne ñoom dañuy nekk ci mbedd yi nekk fi xeex ak ah, comme ça policier ak yooyu daal ma leen di ñaax yooyu tamit moom dañ ko arrêté parce que ñoom ñoo yor moom suñu sécurité ñoom ñoo ñuy aar ba tax na daal su ma sañoon daal affaire yooyu ah nañ ko arrêté waaw jox na respect biñ moom waaw moom tamit waaw ñoom tamit waaw ñu koy delloo daal waaw parce que ñoom ñoo yor suñu sécurité ah ku ci jaaxle ci mbir ah, ah, ah ñoom moom police ngay woo. waaw teewaay bi moom li ko waral mel na ni euh, lu ñuy fàng kenn du ko jeex ndax euh, ay ndogu lañ doon préparé pour yóbbal ko ndongo daara yi ci loolu jot nañoo yàgg nañu di liggéey ci ay social di wut ay restes di dajale suñu wejet ba yàlla def lii amee euh, fekk. ñu waxtaan ci ak monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mu nekk ku baax ku social ku bëggu jàmm ku gore ku am diine ku noppi ku liggéey te boolewul dara ak i wax dañ ñu feebar bii comme am na bëgguñu dara loo xam ne ni luy yàq la lépp loo xam ci defar la ak lu rafetal neen ko jéem a def nekk leen ci seede yàlla ndax lii bu ñu demee ba di ko def mën naan la ak cause de moom ndax moom moo ñu ngemb dooleel ñu fépp foo xam ne gis nañ ko ci loo xam ne lu fakkastal rek ñu jëm faa jëlee rawatina dipp ba feebar bi jëmee ba léegi noppaluwuñ guddi ak bëccëg toujours moom ci loo xam ne luy rafetal ak lu fi jële feebar bi rek ci la nekk ak lu dimbali askan wi moo waral mu joxoon ñu lii ni ñu nañ boole li ñu am ak li nga xam ne moom lañ man ñu daal di koy jéem a defar yóbbu ko dongo yi ngir dimbalee leen ko ngir mën a toog ba nga xam ne nii jàngoro ji nekk ci biir réew mi dina fi jógee ci jàmm. ñoom ñi nekk ci mouvement de la diaspora bi jàppale Aly Ngouille Ndiaye te nekk ci dëkk bu sell bi di Touba nee nañu seen yéene de ëpp na lii waaye ni ñu ko defee noonu la ñuy wëy di ko defee ba keroog jàngoro ji di leen won ginnaaw si njàpp ndal seen kilifa gii di Aly Ngouille Ndiaye